كل سوء يلقيفا قول الحق منفردا من حضرات الغيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكو تلسبكتاتر اتو مودو تي في سور لي 3 دال حاج عبد الفاتن بروم تايبا تاي نك داني وقتاني جام مبكي ياكرنا لو نيتال جام متاخ دان نا ديغ كادو غورو يالا غو ماغ نيكي صالح مبكي yal na yàlla yokk leeram daan na wax ni jàmm moo gën fii moo gëm fu ñu jëm mbokk yi koor war na mën a tax ku nekk am jàmm ndax ku koor ku nekk la nga yitteewu mooy jàmm li ngay téye sa bopp ci ba ñu dugg ci loo xamante ni mën na laa jural fitna soo génnee ci koor gi mën nga ko def sa projet de vie ba koo séqal muy jàmm xam ngeen ni jàmm ci la lépp xaj moo tax yàlla sunu borom subhanahu wa وحتى لم سيدنا محمد نكو يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا وين تبي واحد جلتي نلين نيو تنك نيوم نيب إيفيتنا لين من يلا تجام نيو واحد جام دي دف جام واي سون بيجي جام أم ما يكونك لعنة يين سبب دمكو يين سمرام يين تبي صلى الله عليه وسلم بس توك نصحابي توك مولن كيف كوكو مولي الله دارم أجنه ñu ne ko yow rasulullahi gëm nañ yàlla gëm nañ la mu ne waaye ngëm yàlla gi du mën a wér fii ak bëggantewu leen ñu ne ko yaa rasulullahi nan la ngeen def ba bëggante mu ne afsu salaama baynakum faw da ngeen di jël jàmm ngeen tasaare ko seen biir looloo permettre jullit bi su gisee moroomu jullitam balaa ñu seq benn kàddu wala benn jëflante ñu roof jàmm seen biir kii ne assalaamu aleykum kii ni ko wa aleykum salaam lan lay tekki assalaamu aleykum mooy sama kuddu jàmm la ràcc waaleykum salaam sama kudd jàmm la raj loo leen séq loolu di jàmm dina tax fa tabaarakallaahu àddina bi am jàmm dina tax dëkkandoo bi am jàmm waaye dina tax ku ci nekk loo nekk yàlla defal la ci jàmm kon mbokk yi nañ leen bàyyi xel ni nit mënul am benn stabilité ci àddina wala sax jaamu yàlla bu sax te yiw te sell te jàmm lalu ko fa tabaarakallaahu àddina bi bëri na fitna àddina bi bëri na ay yëngu-yëngu waaye lépp lu mënti am jàmm ko gën kon nañu ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm waaye nag pour jàmm am nan la ñuy def ba jàmm am di leen ko wax incha allahu taala ci émission bii di ñëw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. قيد بالصبا وصليا